ndaje ki ñu tuddee Falilu doy na tegtal samaanaam tur wi xam le na boo di mbir ma nga juddu ñu tuddee Falilu doy na tegtal samaanaam tur wi xam le na boo di mbir ma dama xamul yollantoom yollantoom yollantoom yollantoom Samba Mbakke nit du ko rey te du ko xoole Bamba yaa yaa naan yàlla bàyyi fi sëriñ na Samba Mbakke nit du ko rey te du ko xoole Bamba yàlla antaan yàlla bàyyi fi sëriñ na Samba Mbakke tubaab yi daanu nu wax sama sëriñ nuroon naag Bamba yàlla antaan yàlla bàyyi fi sëriñ na Samba Mbakke Ndakaaru lañ ko portale àllarba keroog la bàcc Mbàkke sama sëriñ keroog la ramb marché tubaab bi naan ko merci murje naan ko Mbàkke balan sa tijaani naan ko labbayka njool ma jëy saa xaadiru ak limaamu naan ko ahlan wa sahlan siixna ma saba ahlan wa sahlan siixna ma saba ahlan wa sahlan siixna ma saba ahlan wa sahlan siixna ma saba اهلا وسهلا شيخنا مسامع اهلا وسهلا شيخنا شيخنا مسامع ويجوي لنا Sëriñ Musaa ne wuy jooyle leen ma caat mi semmal taaw yi Sëriñ Masamba Mbakke mool beek maaw yi wuy jooyle leen ma sama mbaka carmi samal taabi suma sama mbaka carmi samal taabi sëriñ maawi ku deet may kantang ba saafamba ma sama mbaka kiraar na kaaru lañ ko ku deet roy roylu di tomb tambam yi gannaaw suma sëriñ sëriñ Masamba ku deet roy roylu ku deet roy roylu sëriñ mag di tomb tambam yi gannaaw suma sëriñ sëriñ Masamba ku deet mag bi sëriñ Musaa ne sëriñ Musaa ne maam Njàmba ne ku deet roy roylu sëriñ mag di tomb tambam yi Seex Bamba sama mu Sëriñ Tuubaa naan ko Sëriñ Masamba Mbakke sama maam mu Sëriñ Tuubaa naan ko Sëriñ Masamba Mbakke mun Sëriñ Tuubaa maa ci xalwa teew yaa jalwa jërëjëf euh, man na euh, lieutenant Mamadou Diop service eaux et forêts Pikine donc tey moom dañoo teewee donc euh, bés boo xam ne set setal la si daar Massam Massamba Mbacké euh, fii mooy euh, Mbaaw dans le cadre du dans le cadre journée Clean donc si diggal suñu kilifa bi mooy na lieutenant Mar Ibrahima Mar mooy suñu chef secteur de pikin donc loo tax ñu teewee fii tey di participer ñu tam di joxe suñu participation mooy participer si Clean bi andi ay garab reboiser ko accompagner avec nos agents vraiment gis naa leen partenariat bi vraiment rafet na bokk rafet na trop te maa ngi ñaax ku nekk ay individuel ay privé donc euh, daara yi ñëpp ñu mun a mbooloo euh, bu ñuy def seen euh, comment dire clean day ñu wooñu ñu teewee ko ñu liggéey ensemble te lii moom loo xam ne vraiment dañ ko rafetlu te lu baax la tamit na jëm kanam incha allah sànni waaw màggal gi ren mooy ñeent fukki at ak ñett yoo xam ni dañuy màggal euh, ma sàmba Mbacké di fàttaliku Soxna Bintu Soxna Bintu nag moom moo fi nekkoon di jëf jëf ju ji sunu boroom euh, jële ko fi njaboot gi continuer liggéeyam liggéey bu am solo ndaxte du duurug dundam léppam daf ko joxoon lislaam léppam lislaam la woon euh, léppam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul la woon léppam waajuram bu tedd bi muy ma Massamba loolu moo tax mu taxawal daara ji ba nga xam ne dem na ba nga xam ni nekkatu fi mu jël jaare ji teg ko ci loxo njaboot gi njàng mi sëñ Abdoul Xabir moom ma Moustapha Massamba xalifa ma Massamba Euh, moom moo yor daara ji nekk fee xale yi bon nag euh, lii nag euh, di màggal gi nga xam ni li ci njëkk mooy le samedi la ajuma di le 28 avec toutes les forces de défense à savoir les sapeurs-pompiers service d'hygiène la gendarmerie ak tamit mboolem ñi nga xam ni ñi ngi fi et les journalistes vraiment en partenariat avec le maire Moussa Sy la commune de Mbao et aussi avec euh, le ministère de l'urbanisme Abdou Karim Fofana et ses services vraiment nu sommes en partenariat pour euh, def tey reboisement def cleaning day suite à l'appel du chef de l'État parce que tamit set dafa bokk ci jaamu yàlla nekk daara wala di jàngale alxuraan rek terewul bërëb bi nga nekk nga set setal ko loolu moo tax mbooleem taalibe yi mboolem riverain yi kër yeeg donga yeeg ñëpp fu ne waay jóge na fa ngir aussi ñëw jàpp ci liggéey bi donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant presse bi di sant sapeur pompier di sant service di d'hygiène di sant waa environnement di sant waa urbanisme di sant waa Sénélec ak tamit mbooleem ñi nga xam ni ñëw nañ di fàttali di wax bis bi tamit samdi la euh, di euh, le 29 Euh, ñi ngi sant bu baax euh, ñi nga xam ni jàppale ñu ñu ñoom Pape Mayal waa ADS ku lim juum. daara ji tamit euh, situation bi mu nekk mooy comme ni daara yëpp nekkee xam ngeen ni coowu daara jamono yi bari na waaye dafa mel ni soxna si gisoon na lu mel nii waxoon ko ci 2002 wala 2003 bu ma juumul bi daara Médina bi lakkee waxoon na ni moom ibbi na ay buntu daaraam. mboolem xale bu am jafe-jafe ci mbedd mi tàllal na loxo nguur gi pour ñu andil ko ko moom li war ci moom dina ko def soxna si nag musul xaar dara ci état euh, léppam sur fonds propre la ko def at les personnes de bonne volonté ku ne xam na ni nag daara ak jafe-jafe ñoo ànd loolu moo tax njaboot gi ñi ngi tàllal loxo état di tàllal toutes les personnes de bonne volonté tamit ñu jàpp ci parce que tamit li gën a jafe ci jamono mooy tabax ndaw te ndaw ñi ñooy ëllëgu ñoom ñooy sunu ëllëg te ñoom ñoom ñoo war a euh, jël relève bi loolu moo tax lépp lu nu def ci ñoom ci éducation bu am solo doyul loolu moo tax ñu ngi tàllal loxo ñëpp bon xale yi nag euh, bari na bon euh, ñi ngi leen sende en trois groupes groupe bu njëkk bi internat la lu tolloog téeméer ak juróom fukk ci xale ñu ngi fi yeneen ñaareelu groupe bi mooy ñi nga xam ni dañuy wàcc di ñibbi ñetteelu groupe bi tamit mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw en période de grandes vacances mais loolu sëñ Abdou Khabir bu jëlee kàddu dina ci ñëwaat. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, xam naa comme ni ko sëñ Abdou Wahab junjee noonu rek la demee euh, soxna si liggéeyoon na ci lu yaato yaat loo xam ne moom moo ko doon def ci kattanam gi nga xam moom la ko yàlla defal ak mboolem taalibe Sëñ Tuubaa ak soppe yi nga xam ñoom la ci àndaloon daan ko taxawal ba ni mu fi jugee bi mu fi jugee nag njaboot gi ñëpp ànd. ñu jiital ñu ci njàng mi ak njàngale mi waaye nag di ñu ci jàppale ak di ñu ci dimbale waaye comme ni mu ko waxee ku ne xam ne ne daara euh, dafa doon lu jafe rawatina mbirum xale ñu te soxna si am nu nàmpataloon xale yi noo xam ne ci toppatoo bu mat boo xamante ne si euh, war nañu ne ñu fexe ba loolu ñu def suñu kéemtalaay kàttan wala ñu def lu ñu tool wala lu ko jege comme ni mu ko waxee nag ñu ngi ciy woo euh, état mi nga xam ne mboolem fu xale nekk Euh, di jàng loolu waru garam la woon kon dafay mel ne soxna si lii mu taxawal ñoom ñoom lay dimbali kon ñoom ñu ngi leen woo ci loolu lépp loo xam mën nañ koo jàppalee daara waaye ñu jàppalee ko xale yi nga xam ko baax a baax waaw comme noonu mu ko wax xale yi lim boobu lañ yor am nañ ñoo xam dañuy internet am ñuy jàng di waaj semi internat am ñoo xam ne par vacances rek lañ fi ñëw su vacances yi jeexee ñu delluwaat loolu noonu la ko soxna si tëree woon ñu continuer di ko doxalee noonu waaye am na nu mu mel ndax ku ne xam ne ne daara dafa dafa doon lu jafe waaye rawatina lu jëm ci mbirum xale bu defe daal ñoo ngi ci woo ñëpp di ci woo état lépp luñ mën ci jàppaleen ak taxaw leen ñu def seen i njaboot fi de waaye nag njaboot gi moom ñoom ñi ngi ci waaye nag xaaruñu ci kenn waaye teewul ngi ciy woote ak di ci tàllal loxo ci lu ñu jàppaleen bu baax a baax rawatina yaatal jugum ci côté ay dëkkuwaay ay mbaaru jànguwaay ay lépp daal lépp loo xam ne xale daal dana ko soxla ci barab yaakaar xale yi ne fii soxla nañ ko coow li bari na ci daara waaye ñun dañuy sant euh, soxna bint bu baax a baax ndax ni mu rëddee woon daara ji yaakaar naa xëy na bu ñu yàlla doolee sutura coow yooyu ñun xëy na danañu ko dégg rek waaye du du fi yegg si bu ko defee coow yooyu nag xëy na am na ci loo xam ne ah danañu ko jël gàll ko ñooñ daara te fekk defuñu ko waaye nag am na ci loo xam ne rek ñun ñun waa daara ñun ñoo war a xoolaat suñu biir ndax liggéey mel na am na ñu ñu rax ñoo xam ne euh, bokkuñu ci yëf yi xëy na dañ caa tàbbi rek def ko ab wutuwaayu kom te daara du wutuwaayu kom waaye liggéeyal yàlla moo ko tax a jóg waaye du fu ñu wuti am comme yooyu yëpp rek ñu seggaat ko saytuwaat ko su ko defee yaakaar naa bu boobaa coow yooyu bu jeexuti dana mën a wàññeeku bu baax a baax a baax a baax côté boobu ñun ñu ngi ci sant yàlla baax ndax yor nañ fi li mu ay xale waaye bépp parent boo xam ne indi fi sa doom rek li ngay li ngay wax mooy su ma li may réccu mooy yeex gee ñëw waaye du du du du du maanaam du indi ko fi wax dëgg xale yi fi ne amuñu benn jafe-jafe ñu ngi leen toppatoo ci côté yëpp ci wàllu lekk wàllu naan lépp luñ mën ci taxawu leen ba ci faj sax ñu ngi góor góor suñu kamtalaay kàdante ku nekk ñun xam na mbirum paj ni mu ni mu ni mu seeree waaw jafe-jafe yi nag bari na ci daara coow yet bari na waaye daal loolu xam naa moom jamono moo ni àgg waaye nag am na ci loo xam ne ñun waa ñun waa daara ñun ñoo war a xoolaat suñu yëf ñu ci bokkul tey saltel métier mi ñu xool nuñ leen ci génnee wala nuñ leen ci gën ak ñi nga xam ne tamit am na ñu ngi ci biir liggéey bi bëgg nañ waaye formation bi des na ñu xool nuñ defee ay euh, ay ndaje fexe ba jox leen ay formation parce que ku ko wax da war am nekk koo xam ne pédagogue nga am pédagogie boo xam ne ci ngay jaarale xale ba man koo yar mën a def ci moom li nga bëgg parce que xale euh, dafa doon lu lu sensible lu jafe rawatina euh, xale boo xam entre xale yi ñu yor ñun ndax ñun dañ ko limité diggante sept ans la ba treize ans xale yooyu rek la ñuy yor di leen defar moo tax ñiy jàngale tamit war nañu am ñu xam méthode mooy def ba xale bi nga li ngay bëgg a def ci moom nga def ko ci moom te doo sonn xale bi du sonn loolu daal ñu ñu ngi koy woo di ko woo ñaan jàngalekat yëpp waaw ndaje ki ñu tuddee Falilu doy na tegtal samaanaam tur wi xam le na boo di mbir ma nga juddu ñu tuddee Falilu doy na tegtal samaanaam tur wi xam le na boo di mbir ma damaa xamul woon fu may xuusee ci ak dex ginnaaw si ak Bàmba yow nga ni tay wër ma damaa amee raggi xol amee raggi baatin